benn question rek laa bëggoon ak euh, monsieur euh, Sall. Mhm. par rapport ak Karim Wade on en a fait un candidat ya parce que ba léegi dama jàpp ne yaa ngi parti démocratique sénégalais on en a fait un candidat. ba léegi nekkul nekkul di ñëw nekkul di ñëw. Euh, on continue quand même de dérouler malgré son absence ban appréciation nga am ci loolu yow mi nga xam daanaka ci parti bi nga màggee euh, nu muy doxalee nii tey jii ban lecture nga ci am pour quelqu'un ki a commencé depuis l'UJTL ba tey jii bon c'est vrai que situation bu xaw a compliqué la. parce que parfois aussi sa yenn réserve yi du la may peut-être nga dugg ci yenn détails yi mais loo mënti wax mooy tey euh, élection présidentielle d'abord c'est un rendez-vous d'un homme avec son peuple. Mm-hmm. kon l'idéal mooy normalement il devrait être là aller au moins à la rencontre des Sénégalais pour que au moins les militants qui sont là depuis très longtemps di xeex ñenn ñi vraiment am courage. depuis lors xaar ko fi que ñu am la certitude que mu ngi Sénégal wala mi ngi ñëw tey nag lu xew mooy présomption de bon foi c'est-à-dire que moom moo ne dinaa ñëw je pense que toutes les démarches. ba mu ko dalee wax nag yàgg na de. waaw ba mu ko dalee wax yàgg na c'est vrai que bon nit ñi aussi ñi ngi continuer di gëm mais on va continuer à donner une présomption de bon foi que dina ñëw parce que boo xoolee aussi la logique mooy mënuñu aussi. mu déployer tout cet arsenal logistique jël toutes ces démarches hein? le parti a crié partout que euh, bientôt il sera là que peut-être du mesurer ampleur u manqué rendez bi nga xamante ni euh, je pense que mun na même affecter sur la vie du parti tey il est très normal que mu ñëw ce serait une évidence que mu ñëw parce que ça venait peut être un moyen de retrouvailles pour euh, la famille libérale. effectivement parce que am na ñu bëri ñoo xamante ni bon am na ñoo xam dañ naan la il faut que ñu xaar mu ñëw bu ñu ñëwee je pense que mun na am benn convergence. Mhm. de libéraux et autres ñi nga xamante ni c'était frustré wala ñenn ñoo xam demoon nañ ba découragé dem dugg ci yenn parti yi wala dugg ci yeneen euh, organisation politique yi tey bu ñëwee nit ñi am la certitude qui est là et qu'il est prêt à se battre avec eux. convergence mun na am mhm. retrouvaille mun na am. Mhm. ñun aussi euh, de notre côté on attend à ce qu'ils ñu ñëw ñu toog ñu waxtaan mais. ñun nag je reviens également sur le mouvement dañu am aussi ce courage que demain mm -hmm. éventuellement s'il ne vient pas on ne sera pas dans ceux qui diront que non lañ dem euh, xaru wala lañ dem mbëkk miir wala dara on va s'asseoir jël suñu responsabilité xool non pas Amadou Ba forcément pas Amadou Ba forcément candidat yi bëri na. ah Amadou Ba ngeen gën a jege de dëgg dëgg. non ñi ñu jege ah. bëri nañ. am na ñu bëri ñu ñuy approché pas ni ñu waxee jege Amadou Ba le le président Djibril noonu la jegee Aly Ngouille noonu la jegee Mame Boye Diao noonu la jegee keneen noonu la jegee Souleymane Ndéné Ndiaye noonu la et cetera et cetera Idrissa mii nii grand la seen lien de fraternité kenn xamul lan la ñëpp ñu fi Khalifa Sall ñëpp xam na relation également avec le maire Mohamed Djibril Wade avec le président Mohamed Djibril Wade kon mënuñu ne forcément sera Amadou Ba en tout cas dinañ toog. Mhm. évaluer Euh, taal carte du ñu def dara. dinañ jël suñu responsabilité ànd ak li ñu bëgg.